li waral ñu taxawal mouvement bi ñuy yoowee atu muy alliance pour un Tivaouane dafa doon loo xam ne lu am solo la ci ñun yàlla dafa dogal bi ñuy dem élection mille 2014 muy élection locale dañu àndoon ak ki nga xam ni moom mooy Demba Diop Sy ànd aussi ak yeneen membre yoo xam ne ñu ngi woon Benno Siggil Sénégal mais ñi ci gënoon a ràññee waa CPJ e la defoon nañu lu nekk pour ànd boobu mën a taxaw yàlla dogal euh, ci taxawaayu su suñu sëriñ parce que ñun ñoo demoon ci moom demandé ko mu jàppale ñu ba ñu mën a déggoo ñu gañee élection yi nga xam ni moom moo doon élection municipale et locale de 2014 muy coalition Benno Defar Tivaouane donc réeréwu leen mbir ne jamono yi ñu paase lu mel ni ay réeroo jot naa am ci ñi nga xam ne ñoom ñoo formé coalition bennoo Defar Tivaouane ci kaw loo xam ne sunu mbokk yooyu di waa kër démba Diop si am nañ lu leen metti ba tax ñu génn dénoncé ko ñun nag sunu taxawaay bu dara lu dul di ñaan ki nga xam ne moo mooy sunu gidd Serigne Abdou Aziz Al Amin mu nekk suñu porte-parole auprès du président de la république pour que réero boobu ñu wut lu ko saafara nu mu gën a gaawee parce que Tivaouane dafa toll ci guddi politique yoo xam ne li ñu soxla mooy ñëpp ànd li nga xam ne moom mooy suñu yitte mooy njabootu Tivaouane yëpp doon benn ndax président Macky Sall daf ñoo ji xam ne dañoo war a ànd fay ko ko te niñ ko koy fayee nekkul rek ñu fexe ba mu gañee mooy ñu fexe ba mu am une écrasante majorité fii nga xam ne moom mooy Tivaouane li ñu bëgg xëy na 100 pour cent kenn mënu ko def mais dañoo bëgg Macky Sall ak ñi mu àndal muy coalition bi am fi au vingt 90 pour cent je crois que loolu mooy li koy delloo njikkal loolu aussi moom mooy li nga xam ne moom mooy sagal Tivaouane compte tenu de mu fi réalisé lépp donc su situation bi demee nii jaadu na ñun ñu taxawal ak kuréel. pour dox ci tànk yi dox ci ay tànk pour juboo am ci dox ci ay tànk pour ñëpp àndaat bokk ndey bokk bàyyi te loolu tamit dañu koy yaatal parce que Tiwaawan ginnaaw ñoo ñu nga xam ne tudd nañ leen fi muy Benno Bokk Yaakaar ak CPGE am na yeneen nit ñi nga xam ne ñu ngi fi yëngatu di fi def liggéey boo xam ne lu am solo la ci wàllum politique ñi ci mën a gën a ràññee mooy honorable député Cheikh Tidiane Diouf ak it ki nga xam ne moom mooy professeur Lamine Dieng ak ñi nga xam ne ñëpp ay association la ñu yor ak i daayira di yëngatu ngir Tiwaawan mën a dem ci kanam ñu ci tudd tamit ki nga xam ne moom mooy suñu mbokk Siré Sey yor aussi mouvement bu am doole di ci tudd nag suñu xarit suñu mag ki nga xam ne moom mooy Pape ci bu am ñu ko fi teewal tey fii pour que ñun ñëpp ñu àndandoo yëkkatoondoo tegandoo pour que Tiwaawan mën a am victoire boo xam ne Sénégal képp ñoo koy ràññee ci biir loolu ngeen may ma rek ñu nuyu ñi nga xam ne ñoo fi teew di ay kilifa ci gën a ràññeeku di kii toog sama wet di soxna Awa Diop moom tamit di conseillère municipal ak euh, ñi nga xam ne samay ay xaritu démb lañu woon ma ciy tudd principalement le grand responsable politique Mouhamadou Rassoul Diagne ak Abdourahmane Diarra bi ñuy nas coalition Bennoo Defar Tivaouane yaakaar naa ni tolloon na ay jamono metti woon na mais man ak moom ak ñeneen ñoo ci nekkoon di ko dox ba lii tey ak euh, egsi fii mu egsi kon ñuy ñaan yàlla euh, président Macky Sall loolu nga xam ni moom lañuy ñuy yóbbante suñu sëriñ mu jot ci fexe ba njaboot gi yépp àndaat nekk benn li ñu ciy wax mooy li ñu koy ñaan mooy kii nga xam ni moom mooy suñu xarit sunu mbokk di a Diop si ñu bañ ko bàyyi muy dem ak listu boppam parce que li ñu bëgg mooy Tivaouane ñu réaliser une grande victoire boo xam ne tey Sénégal yépp dinañ ko waxtaane donc loolu mooy li nga xam ne moom la ñu bëggoon a waxtaan ak nit ñi doon ci convier presse bi tey doon ci def ay échange pour que message boobu mën a jàll ñu xam ne ñun li ñu tax a jóg mooy Tivaouane ñëpp ànd doon benn je li nga xam ne jot nañ koo jàngat mooy lu tollook mille deux cent inscrits. cent vingt mille inscrits jot naa am ci département de Tivaouane loolu yaakaar naa ni lu am solo la terewul tamit ñi nga xam ne ñoom ñooy société civile ak yenn responsable politique bi politique yi ñu ngi sillonné département bi di waxtaan ak nit ñi pour ñaax leen ñu dem inscrire ci liste électorale yi. waaw je crois que bi ñuy def quand on faisait tout à l'heure l'introduction on a fait allusion un peu à ça. C'est-à-dire, on a l'impression au niveau de Tuawan, les gens sont en de s'activer pour pouvoir montrer toute leur reconnaissance au président Macky Sall suite aux grands investissements qu'il a pu réaliser ici à Tivaouane donc liñ ci seetlu mooy dafa mel ni nit ñi yenn ren dañoo am yéene bind bu baax a baax pour dem voter ji pour wan président Macky Sall que ni lii mu fi liggéey ñor nañu lii mu fi def saf nañu donc euh, ñu ngi constater encore que ni euh, at yële passé li ñu jot a constaté mooy cent quatre vingt mille inscrits moom la ñu amoon donc comme ni nga ko waxee yaakaar naa ni loolu tey jii dépassé nañ ko largement et liggéey bi aussi mu ngi continuer di dem di jaar yoon. waaw déjà ci li ma mën a wax mooy euh, bëri na ay kilifa yoo xam ne ñu ngi dem di leen seeti mais comme dañu nekk ci ay pourparlers maanaam ci ay waxtaan te la nga xam ne moom la ñu nekk di ko négocier antoogul xëy na day jafe pour ñun ñu mën a tudd ñooñu ñëpp seeni tur. donc ñi ci mën a wax rek mooy ñi nga xam ne déjà joxagum nañu seen kàddu ak surtout ñi nga xam ne ñoom aussi tey jii teew nañu fii ci jataay bi pour firndeel ñoom aussi seen accompagnement ak seen taxawaay ci li nga xam ne moom la ñu bëgg nas donc li ñu nar incha allahu rabbi bu ñu jógee ci waxtaan yi nga xam ne moom la ñuy def balaa moo yàgg dinañu dem seeti suñu kilifa sëriñ Abdou Aziz Al Amin jottali ko li nga xam ne moom mooy message waa Tivaouane jottali ko li nga xam ne dëkkandoo yeeg. ñi yëngatu ci politique yépp pour la plupart loolu mooy doon seen bëgg-bëgg tey koo ci fëgg xolom loolu nga ciy fekk loolu dinañ fexe dem jottali ko ko tout en continuant maintenant nag les négociations continuer waxtaan yi pour que ñi nga xam ne ñëpp ciblé nañ leen ñu jot suñu message afin que li ñu bëgg ñu réussir ko mooy Tivaouane ñëpp bokk benn dànk ndax élection yi di ñëw du élection yoo xam ne yu yomb lay doon dina jafe te dañoo bëgg def ki benn score boo xam score record lay doon na bi ñu jógee sol sunu dàll pour taxawal coalition dafa jafe woon mais pexe yu ne def nañ ko pour que loolu loolu tey jii ñu réussir ko donc yu pexe yu raw yooyu dinañ ko génnewaat pour que famille politique bi yëpp àndandoo te incha allah bu ñu waxtaanee kilifa yi am nañu yaakaar ne buñ ci jógee dox ci liñ ci war a dox bu soobee yàlla bu déggoo amee dina nekk loo xam ne déggoo bu sax lay doon déggoo bu continuer lay doon. am nga politique nit ñi dañuy wax dafay obéir à la loi de l'addition mais mois je di dis même pas addition je dis multiplication parce que foo toll jamono bu nekk rek da ngaa war a fexe sa mbooloo di yokk kon ku toll ni Diop Sy ku ko am ngeen nekk en coalition bis bu jógee ci yow war ngaa tiit war ngaa jaaxle parce que luñ ci mënti wax ku am majorité rek man xaw ma ko mais li ma xam mooy macha allah liggéey na fi liggéey bu mucc ayib liggéey na fi liggéey boo xam ne waa Tiwaawan yëpp d'accord nañ ci ku mel noonu bu nekkee njabootu Tiwaawan boo ko ñàkkee yaakaar naa ne élection bu jub see war ngaa tiit war ngaa jaaxle ñun nag dañu bëgg a nekk ay prévoyant duñu xaar ba situation bi daal suñu kaw ñu naan ah bu ñu yëgoon donc li ñuy def mooy jël fexe jël situation bi en mais pour que moom mu xam ne Tivaouane soxla nañ ko pour que mu xam ne président Macky Sall aussi soxla nañ ko soxla na ko pour que mu xam ne kilifay Tivaouane soxla nañ ko donc ñun li ñuy bëgg mooy mu des ci biir njaboot